alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana al-uda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu dhakiran wa shakiran abad waj'al kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyaha bil mustafa xayra shiyam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ja waa at bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yokk siyaar waa daaray xikmatul yawmi numéro 1 ak numéro 2 ak numéro 3 fas yéene dikk ak ci seen xikmatul mi bi ñu leen baaxoo andil bés bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak taw xam seen mbokk Saalihu Si di leen ko defal te ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul te mooy wéyale soññe yi ñu doon def fan yi mu jëm ci wàllu solo xam-xam ak ahamiya bi nga xam ne nii maanaam yitte ji nga xam ne nii Serigne Touba joxoon na ko xam Euh, lu bari ci murit yi boo leen laajoon lu njëkk a war ab murit ab murit lu mu war a njëkk def dañ naa la jébbalu sëriñu murit yi dem moom waxut loolu dana lu njëkk a war ab murit mooy mu xam ji mbirum tawxiidam naka lay wéetale yàlla ak naka lay xamee yàlla mooy kan ba du ko jaxaseeg mbindeef yi bu noppee mu xam ji mbirum fiq maanaam naka la ñuy jaamoo yàlla gannaaw bu xamee yàlla it li yàlla digle naka lañ koy defee ba mu baax bu loolu noppee nag mu doo ko jébbalu ci ab sëriñ ngir dox wuti yàlla moo tax mu ne awalu waajibin alal muridi taxsilu zaadihi min at-tawxiidi wa baxdahu taxsilu maa yusaxixu bihi furud al ayni fi ma saraku wa baxdahu yasluku indraamal wusul ala yaday mukammilin yaxfur rasul moom Sëriñ Tuubaa it wax na ne képp koo xam ne sànq nga xam-xam ci sunna ak ci farata nga xam ne ne yow daal xamloo woo dara looy toppee farata ak looy toppee sunna da ngay këndëng-këndëng nii rek di dox nee na ku réer nga te ku réerale nga te it suñ borom dana ko defante yow bu ëllëgee fa kullu man dayaa ilman bi obi wa bi faraida wa mi minan fa wax su dalaali wal idlaali jazaauhu intiqaamu dil jalaali ci ay soññeem wax na ne bokk na ci pexe seytaane muy dëddu gi lenn ci taalibe yi dëddu xam-xam nga xam ne ñoom xam-xam joxuñ ko euh, yitte jiñ ko war a jox sonnuñ ci itam ba lañ ca war a am ñu am ko wa min makaayidi laa indil mujrimi saddul muridina ani taxallumi kon loola kenn ku nekk war na caa daaw a bokk ñu bari nag dañuy naan sëñ Tuubaa ay mbiram nekkul ci téere waaw fala takun an xidmati bi faatiri dëgg la sëñ Tuubaa ay mbiram nekkul ci téere waaye lim lim ñu digal ak lim bëgg ñu def ko ak lim bëgg ñu bàyyi ko loolu moom mi ngi ci téere yi te bindal nañu ko kon nag bu ñu nax suñu bopp am na ku mas a jébbalu ci moom te kooka mag la mu ne ko maa ngi lay digal loo xam ne nii day lu bari ci fere yi digal naa leen ko defuñu ko waaye yow na ko def te mooy na nga jàngi dala ko yebal ci maam Cerno Ibrahima Fadi mu koy jàngal kon kooku xam joxoon na ko yitte lool ndax nee na mu kàllaf dafa araam ci moom muy def dara te xamut lan la ci diineem àtte kon bala ngaa def dara na nga jiital xam moo ne mbokk yi suñu mbiri àdduna rek day bala cee kenn def dara da koy lijjanti ba maîtriser ko bala caa yàqule wala mu yàqal ca kenn wala mu échec ca kon nag mbirum yàlla rawatina moo tax day buñ demee ci na nafis day wax ne lu fi'lu shay'in qabla an yaxlama ma ma xakama fihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma kon nag balaa kenn def na xam ndax dañoo araamal mukallaf muy def te xamut ci tasuur si xaar day wax ne képp koo xam ne réeree nga say farate te laajoo ko na nga xam ne tooñ nga sa bopp tooñ bu wér a man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abada wa zalam mbokk yi kon nañu yeewu te bañ a tooñ sunu bopp te góor-góorlu te eh, xam li sëriñ bi bëgg ñu di ko def ñoo ngi eh, siyaarewaat ñëpp di soññ mbokk yëpp ci liggéey bi nga xam ne ni waa daara xikmatul yawmi ñoo ngi koy def ngir bëgg yokk a liggéeyal lislaam yokk a liggéeyal sëriñ Tuubaa te lépp jëm ci at tarbiya wa taalim ci jàngale ak yare